so suñu mbokk senego yooyu ñoo leen di merci si seen teewaay today ah, maa ngi tudd Abou Traoré nekk ah, filmmaker fii aux États-Unis New Jersey New ah, York et puis doon juste um, yaatal affaire yi ci um, Oscar de la photographie 2024 bi war a am Togo so daaw amoon nañ chance Sénégal am si suñu benn doomu réew bu demoon malheureusement sixième place jëloon mais comme li ma lay wax rek. Euh, compétition moom ñi si yàgg xam nañ l' essentiel c' est même pas de gagner mais participer si rek dara la parce que tey Oscar bii nii bu demee jël ay cinq cent dix sept je pense personnes yi nekk Afrique euh, dem Sénégal man si jël huit personnes pour man loolu lu rëy la ko so am na sept ñu nekk Sénégal man maa représenté Sénégal euh, diaspora quoi parce que defe naa bi ñaari nit ñoo nekk si suñ championnat man maa nekk Sénégalais nekk fii États-Unis Ah, beneen waa ji Camerounais la moom moo nekk France quoi a vois so mais yeneen sénégalais ñu ngi si yeneen département yi so di ñaan ñëpp xam nañ nañ nañ dem jàppale suñu doomu réew yi parce que pour man jongante yi moo am solo ko parce que nit ki mënoo ne ah, nan la ñuy def tey ba ba ba ba industrialiser tey muy affaire photo yi muy video yi muy audiovisuel bu ñu nekk te jongante yu mag yi yi am Afrique wala yi am Europe wala États-Unis affaire yi duñ bokk. so pour man maa ngi ñaan état bi di ko lancer benn message pour muy maire yeeg ñëpp ñu si nekk am na yeneen sénégalais yi nekk Sénégal yoo xam dañoo bokk ci festival bi na leen gars yi jàppale si seen billet d' avion yi parce que euh, festival bi defe naa gars yi dinañ gérer lekk yeeg yooyu mais hôtel yeeg euh, sa sa lépp lu jëm ci affaire si affaire trip bi yaa koy gérer sa bopp ko so di ñaan gars yi tamit vote yi euh, le 5 euh, août lay commencé en ligne so defe naa dinañ partager affaire yi comme ça ku ci mën dem vote defe naa 100 francs la pour Sénégal defe naa même chose pour Europe ak États-Unis quoi so ku ko mën a rek nañ ko partager di ñaan influenceurs yi gars yi si nekk yëpp ñu dem jàppale suñu doomu réew yi parce que ñun bu ñu demee demewuñ pour suñu bopp ko Sénégal la ñuy dem teewal te yàlla bu ñu mayee ndam dinañ indiwaat ndam bi mën ko partager ba pare mën a gën a mën a inscrire Sénégal ci yenn ci yenn Oscar e que mën nañu xam pourcentage vote bi nan lay demee. so vote pour am 100 pour cent yi déjà boo participer rek bañ jël la euh, jury bi 40 pour cent la mooy c'est-à-dire ni tey sa sa photo yi nga semir. dina am ay jury yu fa nekk ñoo ñoom ñooy ñoom ñooy xool tey ba am na qualité sa profondeur de champ est-ce que you know euh, baaxoon na affaire yooyu noonu yëpp 60 pour cent yi lay nekk quoi so 60 pour cent yi euh, francs la Sénégal defe am na Wave am na Orange Money all of that comme ça bu si jotee le cinq rek defe naa c'est dans 2 jours wala 3 jours dinañ partager lien bi ku ci mën votel you know du benn Sénégalais rek a dem 8 Sénégalais am nañ ay mariage am nañ catégorie événementiel am nañ ñuy def sport euh, man diaspora laa nekk um, so nañ dem votel gars yi pour pour ñu mën a dem ndam parce que gars yi ñu boole lépp bu nekkee jury rek ñun xam nañ ni jël nañ ndam li ba pare quoi mais vu que dafa am vote yoo xam ne ni tey gars yi dañ ciy sëkkandiku pour pour mën a kan moo gañe ak kan moo so na yi dem massivement jàppale suñu doomu Sénégalais yi gars yi jëli ndam bi man moom damay lancer message waa Mbaaw waa Siré Ndeye Marie fi nga xam ne ni fa sookee ko Euh, gars yi dem jàppale seen doom comme ça ñu dem jëli ndam di indi ko Sénégal incha allah.